Good evening once again, um, dear viewers, on your program HealthLink, uh, brought to you here in QTV studios every week uh, by myself, Dr. Ja and Mariama Sane mbokk yi ñu ngi leen a programme HealthLink bi nga xam week buneka nekk ñu ngi leen indil fii nii ci um, QTV studios yi uh, man Dr. Aboubacar Jah ak Mariama Sane mbal konton nak mbal ko lokumo allah jata ka ye health link nga nati bi fanan mariama sane ba to jang qtv télé bumbato kale What we will do is, uh, before going any further, Mariama, we had some videos that we showed last time of some interviews of people in the streets and, uh, and an interview of professionals also. And I will just pause here and allow our editors to put those same videos again so that people can refresh their memories before we continue this discussion mbokk yi ni ñoo def rek mooy ne vidéo yoo xam ne wanoon nañ leen ko nga xam Korka demoon na ci biti laajte nit ay laajte um, ak uh, docteur yoo xam ne laajte woon nañ leen ak nurse yoo amna ne am na laajte bala ñu leen laajte balaa continuer waxtaan bi rek nañ leen fateli tuti si lan lañ defoon ñu door continuer maringol am um, lokunta nga nga video itandia la nga, nga uh, mol dunta sate kono korka ali aje korka dunta sate kono lokun tamila ka mol nyinin ka ila londo la la fahamro lopitan doku lalla ali aje fanan ko tata nga doctor o dol nyinin ka ani nga noso dol nyinin ka mbal jube la ali wol bula uh, jube pour hakil bulandi um, na, na lokun tamila program wala menyin nyin ka cha janimbe dunna ka cha kono bake ala jube munem doktoro la la doko ti ani noso la doko doktoro la doko mu mente wala mu ko ay bor kendo ni mo sasara na taje ay wiste a jibe munebe te a baljato bala dena sina bor boro diala me alon ko ino ay wole ja ko ay wole nyanta la sasanye jarala what is the difference between a nurse and a doctor well a nurse is the one who treats the patients whenever they are sick and a doctor goes beyond what the nurses do. lan ma nekk different nurse ak doctor. different nurse ak doctor ah, doctor mooy ah, du ma mun a wax difference bi that much because am not a medical person waaye xam naa daal ne am na a lot of difference. doctor ak nurse doctor moom dafa mun a doctor moo laa check nurse moo laa defara comme fa soo gaañoo ak yooyu noonu boobu nurse bi moo la war a mun a régler ak jigéeni biir yee yooyu waaye docteur moom comme nga ñëw ak sa feebar. docteur bi moo la war a ceeg man lu ma foog suma expérience ak suma halat loolu laa foog ne docteur bi dafa la a bi xam lu jot nurse mom is there to help. la mooy different docteur ak nurse. docteur ak nurse. <laughs> waaw waaw yëpp benn la yëpp benn la kay docteur ak nurse. what is a doctor and what is a nurse. why like doctor like for a doctor like um he is the first and last to give any mandate or command for any patient or any illness. He is the man or he is the person who give you the right source that this is the treatment you have to take, this is the treatment you do have to take. Like what is a nurse? Like for a nurse, what I understand is a nurse, they are the one who are doing the job. Yeah. The doctor will tell you that this is the patient, this is what he's suffering for, this is what this is the treatment you need to give this patient, him or her. Yeah, that's what I understand in us because Thank you. from school days, that's what I understand. I'm Dr. Alajmane and I'm a surgeon and also the head of the Gambian uh, medical officers in this hospital. Can you tell me your job description? Yes, thank you very much. As uh, head of the doctors, uh, we have a lot of uh, uh, responsibilities to make sure that the hospital works within 24-7, non-stop. We also run emergency services at the ALE, Accident Emergency Department. Uh, we also run clinics, both at the surgical outpatient, and also we, as you can see, we are inside the theater. We meet here for emergency uh, operations and also elective surgeries. We also do daily ward rounds, that is to look at our patients, those who are admitted, those who might need operations or discharge, and how their progress has been over the period of admissions. Now we work as a team, but every doctor makes their independent uh, diagnosis you know, to help patients. Thank you very much and Happy New Year to your crew. Ite bungune tijang? Ndebo odile tijang chief odile, you know. Okay. Uh, ite as odile nitata alia. alla yamol ni tata jela holiday la alla alla yamol e ka jikile be uh, borol natle lefo. ah because de la boro di boro boro ah Thank you very much. Um, like uh, we said the last time in the other program, we have talked a little bit about doctors and uh, I don't think I want to go more into details about doctors. We should know that they are the team leaders. Uh, they have gone through a lot of training to reach where they were. Even the young doctors, what we call young doctors, doctors who have just graduated, they would have gone through after high school at least eight years of training before they were able to be doctors. So, they've gone through a lot of training. They are the team leaders naturally in the health system. Uh, but today, what I want to start with is after that interview that we had uh, with our colleague nurse uh, to talk more about nurses because I don't think people understand much about the role of nurses and, and, and, and what a nurse is. Uh, and um, as I said, no one person is more important than the other. So the nurse is not more important than the doctor, and the doctor is not more important than the nurse. Each one of them has their role, but definitely the nurse is very, very important in the in the in the health system. And without a nurse in the ward, and without a nurse working with the doctor, I doubt anything useful will happen in a in a, in a hospital. So they are specifically trained to care for patients on their day-to-day needs. Whatever the patient, if a patient is admitted in a hospital, it is the not, not the doctor that is with the patient 24 hours. It is the nurse that is with the patient, a nurse that is with the patient 24 hours. All the day-to-day needs, including the medications and everything that they need, it is the nurse that does that. Uh, so mbokk yi lu ñoo wax rek léegi nii uh, mooy ne um, uh, week bëli na li passé waxtaana woon nañ lu bëri ci docteur yi wanoon nañ leen ne docteur bi mooy boppi ñëpp ñoo xam ne ñu ngi liggéey ci lopitaan bi so team boo gis ci lopitaan bi rek doctor bi mooy boppa bi euh, waaye loolu nag lu moo euh, diktal mooy ne ñeneen ñuy liggéeya moom it tamit ñu am important lañ ku ci am important lool mooy nurse bi euh, wax naa leen ne nekku ne docteur baa gën am important nurse bi nekku ne nurse baa gën am important docteur bi waaye man lu ma gis mooy ne nurse bi am na importance lool lool lool lool si mbiri faj si mbiri faj bi parce que su nurse nekkutoon ci ward bi Euh, fooguma ne faju bi dina dem kanam parce que docteur bi moom su demee ba gis malade bi rek ne lii moo ko jot euh, wax leen ne nii ak nii lañ ko war a fajee moom dafaa dem yoonam noos bi moo faa nekka lu malade bi di soxla yépp suba ba guddi moom moo fa nekk soo fanaanee ci loppitaan bi noosi ngay fanaanal foofu noonu ci lopitaan bi ñoom ñoo nekk yow di la wax lan nga euh, di di la toppatoo sa soxla yépp ñii ko toppatoo te noos loolu lañ ko jàngal jàng bu gudda bu moo jàng yëpp euh, lu mu bon bon ñetti at ñeenti at yoo xam ne mu ngi koo jàng euh, ñu ci bëri dañoo jàng lu ëpp loolu noonu lu ñoo jàng mooy naka la ñoo toppatooyee malade bi soo ñoom ndekete ñu ama am important lañ dinañ gën a ñëwaati nag di leen wax si yeneen yoo xam ne noo si dañ ko dee def waaye ñu bàyyi Mariama wax nii rek suñ mbokk yi ñu door a continuer maɗigola la baraka allah juɓerola la lokuntan bila anal al hakkilo ta ko nakaca a ñatilinta bake docteur la ila kummaya lopitanoto ila ila ila nyaton kayaje doctorol kummaya bata jele adun tolle ka, ka doko coordinate tolle ka doko samba nya fo mole pour abita nyamin bari ndin ali ajube fanan doctorol dorong buka doko ke jata kende abunda karola ini mo jamal le ka doko keje adun wol be kumata le bari mo fulan jango min kumata ne boto doctor roto am ah, um, wolom no sote no so la, la kummaya um, mbe walkacala mool ye bi pour isa faham no sola dow ko mominti bayri nin atara docteur o nata fo aye moƴa e, e, e, ate ka miniti dantanne ke ke sasato kunto atata ka miniti dantanne ke e couranto kunto ayala dow ko ke doron ate ka min be safe moole bi je min kawatamandi walla no sote mi ya lon ka tele nin couranto katara je Eh, eh, tilo kabrin kabo somanda la fo janding tilo be boyla ikaje isiyata dobi je woka somanda doku dobi je woka wularo doku bari tolle ning doctor rol ka doko ke adi tolle katara kuranto kunto wato wati itata je dorong ike tolle taraje mbe tolle la kacal uh, eh, kala bake pour mol sa faham ila kumaya lopitano to ila doko kata nyamin pour mol se la doko long an ila kumaya jata kende abunda karola doctor yes apart from um, implementing the doctor's requests. Uh, the nurse also has other, other, other functions. The nurses are trained during their training to recognize problems. Okay, they can recognize problems sometimes that even the doctor has not recognized. And when they recognize those problems, then they can inform the doctor that look, there is this thing also going on, on with the patient. So we should not think that the nurse is there only to implement what the doctor um, is, is saying that should be done. they also are trained to recognize some certain problems and when they recognize those problems they can take action on them euh, beneen mbir moo xam ne tam nit yi war nañ ko understand mooy ne buñ foog ne noos bi liggéeyam rek mooy docteur bi ñëw gis malaat bi ne lii moo jot malaat bi nii lañ ko fajee moom mu toppa ndigal yooyu noonu rek ne ko ne moom ndigal rek la moo toppa noos yi dañ leen dee train ci seen jànga naka la ñoo xàmmee mandarga yenn feebar yi nga xam ne ñoom suñ gisee loo xam ne docteur bi gisu ko woon parce que ñoom ñoo nekkaa malade bi comme ni ma ko waxee 24 hours am na yenn yoo xam ne ñoom dinañ ko seetlu man mi nga xam ne maa ngi nekkaa bi benn juróomi minute wala fukki minute rek du ko mun a seetlu because awma time bi pour seetlu loolu noonu ñoom tam dañ leen di train pour ñu seetlu yenn yi so loolu bokk na ci liggéeyi noos mbaɗigol ko mol ama no solla dow kon yaaje ñing kaca yen konta nan tefango mo no adun a ah, ñing kaca abe abe abe abe abe dinkala lemba ambe mollo ndirndi la kuja malla je ni yaaje ko am no so manki ko atabi je le doron pour docteur o nata ay fewo fen fo doron ate wota mandi hani ye no so fanan karande ni yaaje kan dolbi je ka karan sanji saba sanji nani adun dolka karango kele min jamfata woy ke wo karango ko ne ke tol fanan karande le coming ye kuwa suute kuranto bala amanke ko docteur o je fengo be je because tolle katara kuranto koto kabirin somanda fo suuto wato wati tata je doron ike tol tata jele ike tol fanan karandele pour ise ko suute kuranto bala mi yalon ko docteur o nyata jela ne aje wala ko docteur o doron buka do ko ke adun itol man tata je doron pour ko docteur o la la kuma kan o tamandi itol fanan bijele pour ila nya ani la hakilo pour ya jibe kuranto dobi je nin nyin ketala dorong itoli docteur o uh, a, uh, a kalamutandala pour jata kende a, uh, a kuranto mako yose sonea ifanam bije la dorong ni lawo hakilo ko hakilo tamandi amanke ko dorong ibije la dorong pour docteur o la fitamin itoli tarawa tamandi kan Another function that a nurse does very well is administration of drugs, um, including injections. Um, I know of some few doctors who actually don't even know how to give an injection properly. And this is because this is the thing that the nurses are doing all the time. So they know how to give injections and maybe if I give an injection to somebody, it will be very painful. And if a nurse with gentle hands like Mariama gives you the, <laughs> the, the, the, injection, it will be, it will be a less painful uh, injection than the one that the doctor has given you. But, but, but these are some of also the functions of a nurse. Uh, mbokk uh, nurse dañ ko dee def euh, mooy pour joxe garab yi comme nuñ ko waxee rek doxal ndigali ne wax nañ ne garab bi daf ko war a jël time sangam ñu jox ko time sangam ak ay péngu yoo xam ne ñoom tam ñoo ko joxe te foog naa ne sax léegi nii noosi ñoo gën a mun a péngu ñoo gën a xam naka la ñoo péngoo docteur yi parce que man soo ñëwoon ma ma la xëj na dafa métti waaye Mariama mi taxaw nii xëj péngoo doo yëg ne sax péngu na la soo loolu noonu yëpp lu ama am solo la pour nit yi xam ne liggéey bi dañ ko bokka nekkul liggéey boo xam ne kenn nit rek moo koo def moo tax ñuy waxtaanee li maɗigol no solla dow kuɗo min lafta mol aya fahama lafta nimmol yakasha wala ko a manque koye bi je doron pour ka docteur walla kuma kamatamande ila dow kuɗobi je fanan walla commin ka borodi i tolle bi je nin docteur o ko no ay eh, ay eh, kuranto surata ñim bordi nangam lella i tolle ɓe lorim wo bunda to ni tata je tolle ka boro di kurantola uh, akamta ko dorong doka kamen fo ni tata lopita ni tata te ya ate pengori la second time min belori telephone bulo suma ya tata adu ngalo kon tele bulo suma ya tata back back tete bake um, no so la doko wo fana mu kulati mi yalon ko ila doko walam wato wati nal tata lopita no to dorong albe la rinje no so le kataraje furuka ka boro di alla wo fana mu ila doko wati doctor yes uh, apart from that also there are some minor procedures or some procedures that uh, nurses can do with minimal involvement of the doctor or sometimes even no involvement uh, of the doctor. Sure. Uh, and these uh, include uh, doing minor procedures. So if somebody has a small cut, some nurses are trained to, to, to, to suture that cut or to, to, to clean that cut and dress it properly. Um, some nurses are trained, in fact, midwives, people who deliver normal deliveries are almost always nurses. There may be some supervision by doctors, but it is the nurses that are trained to do it and they can do it very well. So, there are procedures that nurses are independently doing uh, with very minimal involvement of doctors uh, beneen mbir moo xam ne tamit am na nekkul ne rek ay péngu yee joxe garab yee yooyu noonu rek la nurse yi dee def am na ay liggéey yoo xam ne tamit ñoom dañ leen dee jàngal ñu mun koo def uh, benn mooy su nekkee ne xëy na danga am dog boo xam ne wala nga yaa ngi gaañu ci sa yaram bi nga dem ci lopitaan boobu noonu su nekkee lu ñu war a ñaw la benn ñaw wala ñaari ñaw jàngal nañ leen naka la ñoo ñawee ñu mun koo ñaw euh, ñun ñëpp xam nañ ne euh, in fact euh, soo waxee yaa suñ yaayee yooyu noonu ñoom ñëpp xam nañ ne noos yi ñoo dee di wasinal jigéen yi ci lu ëpp yëpp Euh, ñoom ñooy euh, doxal wasin bi naka la moo demee yenn yi nag na na ni docteur nekk fa waaye am na yu bari yoo xam ne docteur du fa nekk sax waaye noos mooy def te jàngal nañ leen naka lañ ko defee ñu defee ko nuñ ko war a defee loolu tam bokk na si liggéey yoo xam ne noos yi dañ ko dee def nekkul ne da nga soxla docteur pour def ko mbaɗigol a ah, lafta moli e min faham ko koteke doron walma manque ko commin pengonin buri dio anin ka docteur ulla kuma taman di nosol ka doronde ke nosol e karandi ku jamal la commin ni tata doron mobije je aya fango barama a mbata a kunto jamfata e karandi le puruka wal kara aɗum dol bije e buka sula puruka ka kumandi wal be mo kuulete mi alon ko nosol ka wal be taman di nole hani docteur fango manna eh, naje aɗum ɗiga mbalñinin ka antata tata nol to jamal majama ika e ñim musol min je be tingo kono um, ah, no sol le ke wulun ke ke ting muta itolle e bije pour ke ma ko ifo e janning ibe wulula ye fongo soto ani dingo li fongo soto uh, fo na tara ko e min bije a ila la bayri lopitano to momo bije doron inila la kuwa lem ni nga tara a suulata docteur o la le docteur o kanana bari ñim mu kuuleti mi alon ko noosol a bori dio doron ti wol be mu kuleti mi alon ko ye karandalale la le aɗum ni tata lopitano to ali nosol noosol je a doron a ko ye londo sota ko kono doctor docteur Thank you very much. Uh, I think nurses are very important. I think I've made my point. Sure. Uh, I don't need to keep going on this whole program sure. talking about nurse, nurses. Nurses are very important. But uh, it is not only nurses and doctors that work in the health facilities. There are many other uh, professions. One of them is the pharmacists or pharmacy technicians or the hospital itself will have a separate pharmacy that works with them. So, I will not uh, take much more of our time. What I will do is I let Korka also go out again and ask people and uh, in his own funny way of, of doing it. So like, like I, I, have, I have seen some of them and then he will come to you like this and say, Mariama, what is a pharmacy? <laughs> and, and, and, and, and look at you with, with his uh, big eyes, you know, and I, you, you will see what the reaction of the people is when he went out to talk to them. mbokk yi um, uh, su nekkee ne dañ bugg a continuer di wax ci mbiri noos yi uh, dañoo foog ne man dama foog ne a am gën a am importance ci lopitaan bi uh, waaye am important lool lool lool Munu nañu haufini fii nii di wax ak loolu noonu ba programme bi jeex waaye bëggumaa jeexal programme bi si noos yi rek am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi liggéey ci lopitaan nekkul ne docteur yi ak noos yi rek la am na yu bëri yoo xam ne dinañ dugg ci yenn yi waaye maa ñëw dugg si nii mooy pharmacie eh, lan mooy pharmaciste eh, am na ñu bëri nag suñ duggee ci lopitaan pharmaciste bi docteur la noos bi docteur la docteur bi docteur la keneen docteur la waaye lan mooy pharmaciste dugoon nañ nag ci askan bi di leen laajte lan mooy pharmaciste mu nekkee leneen lu reelu loo xam ne eh, korka defati na ko ñu déglu korka que moment nit yi ñu seet lan nag lan la ko nit yi wax ne mooy pharmaciste ñu door a ñëw dellu si fii nii. mbaɗigol nin ko kaca be kela nosol la kacala tinta banna ninga tutan defaŋo doron doron be tura ñinela bayri nte faŋo mu nosol timbe ñine kacala fo jannin programme ɓe banna bari ni a nosol doron mankuma ya lopitano to lopitano momo bije doron wo ya ay dokule sota ka minke je momo bije wo ya ay kummaya soto jele mbe mbe mbe albula la doron bina video mi yitandi yalla doron albaje la kol kadunta sati kono ka mol ñinin ka na ñin kaca do mbe min kacala wo be kala kom pharmacist ni tata lobitano to juma lom pharmacist wote mbal bula dorong ali korka jibe komi nga dalita ka kenya min kata sate kono baram mul ka ke nyinin ka am a nyinin ka mun pharmacist nga jibe mol la jabiru ani la londo wo karola muminti ala jobe service do you expect from a pharmacy why um what i understand is um like the job of a pharmaceutical or other things um, i expect them to give people good drugs um, take good care of them um, because that's their job. Tell them which kind of drugs they're supposed to take, which kind of illness, which kind of drugs they need to take to this illness. That's what I understand for the pharmaceutical um, job. ban service nga expect pour am si pharmacy. waaw pharmacie moom soo demee Doctor sa kayit docteur bi moom war na check su de am nañ noos ak yooyu seet kayit bi. because service boo fa war am mo ne rek nga joxe sa kayit ñu seetal la garab yow war a jënd ak yooyu suñ ko amee ñu jaay la ko foog naa ne loolu daal mooy service yi pharmacie waaye pharmacie kenn expectut ne da nga fa war a dem war fa mun a tëdda ba xam nga loolu mooy problème ak garab yu seer yi xanaa. ban façon service nga expect from a pharmacy. pharmacy apart from jaay garab nothing less nothing more. mun kana service yemune mira iba soto la pharmacie kono ah len tara pharmacie no ngal sura ta borol men ngo bor siva so tan be nyanta mol men fanan tarra je si borol dina me alon ko adina jar kenda be titano bitano Thank you very much. And uh, as you can see, Mariama, it is not only the funny way that he put it and the, the confusion you can see the people. I don't think the confusion is only because uh, of the way Korka has put it. I think it is because genuinely people don't understand very much uh, what a pharmacy is uh, and what the role of pharmacists are in their treatment. Uh, so before actually I go to details, about what a pharmacy is and what pharmacists do in the medical field, I will go to a pharmacist himself. Uh, we have had our team go to a pharmacy and ask one of the pharmacy technicians what their role is. I will listen to that first, then I will come back and dilate more on it. mbokk yi uh, comme nuñ ko gisee rek uh, fogu ma ne rek nu ko korka laajte gars yi moo tax ñëpp di wax nuñ doon waxee noonu waaye definitely nit yi xamuñ bu baax a baax. yii nii yëpp euh, naka la dee demee lan mooy pharmaciste bi am na ñoo xam ne suñ duggee ci lopitaan docteur bi mooy pharmaciste pharmaciste bi mooy doctor nurse bi mooy doctor daal euh, yenn ay sax euh, cleaner bi kuy kuy kuy kuy kuy kuy kuy kuy kuy kuy raxas foofu noonu docteur la am na ñoo xam ne hmm. gannaaw mu ngi liggéey ci lopitaan rek docteur la naa ne am ñoo xam ne suñ demee ci seen dëkk yi ehm, dellu pour dem holiday wala yooyu noonu te fekk yow eh, sa liggéey ci lopitaan bi mooy raxas yooyu noonu soo demee ñu ne kii mu liggéey ci lopitaan bi nga gis ñëpp ñëw ne ah dama soxla nga gis yenn yi nag am na ñoo xam ne moom manduwuñ <laughs> dañoo commencé di joxe garab yooyu noonu foofu noonu mel ni ñoom ay docteur lañ wala ay nurse lañ fekk ñoom xamuñ ci mbiri faj bi dara ñoom seen seen liggéey lañ xam te seen liggéey lu ama am important la ci loppitaan bi euh, so du ñoo def rek mooy du ma gën a dugg ci mbiri liggéey pharmaciste yi gannaaw korka laaj na na nit yi gis nañ nit yi lañ leen foog ne moom mooy pharmaciste dem nañ nag ci benn pharmacie ñu am koo xam ne laajte nañ ko euh, ñu déglu ko léegi nii moom lan la wax ne mooy pharmaciste balaa ñoo ñëw ñun gën a wax ci loolu tuuti mbaɗigol mbe kaca kaca mbe dunkan kaca konel aɗunga kaca be abe abe kumaya kam mbakele um, bari aliye um, mbalbulal albina uh, vidéo min je la commin aliye min je korto ɗum ta sati kono ay molñinin ka moli la fa, ila faham ro danta daming commin min mu pharmaciste o to yewo um, a tata fanan ay pharmacie tiyo fongo ñinin ka pharmacist to aya ñinin ka ala ko minti balbula doron aliye wo bari molla faham ro amang amang amang jurwa je baka amang wara je bake dolbi je wali amira momo be lopitano kono dorong item item item uh, uh, uh, uh doctor rolti dol ya mira ko hanim fam par la fon ka mira ko doctor rolam dol bije ya ko e, e, jata kende abunda karo do kula dol hanni bota jandoka ko ngi tati la satel to bota jandore tati la satel to ay kay bimbayaji jibe ni da dorong bayri te bota kombolebe do ko la pitano to ka fole ko docteur bakari natale sa je molbe so bori nin ka la bare ni wasi ke mol si hakilo to dorong amanke ko do ko la je dorong mu docteur balti mbati mu pharmaciste oti ye kulong boro mbal mbalbola je dorong ale ñim pharmaciste oji ɓe yateñinin kala dow kola minti jaabiro ketaminti What type of health facility is this? There is a pharmacy. What is your role in treatment of patients? Yeah, our role basically in the treatment of patients is like to receive like um, prescriptions from recognized hospitals whereby doctors will clerk their patients, do necessary investigations, and then diagnose and then prescribe. So from our end, we can dispense based on doctor's prescription. So in the event that there are some like errors or some oversight. We can get where the error is, for example, and then try to communicate with the doctor again to see how best we can get the right treatment for the patient. Welcome back uh, from that video. We have heard the, uh, the, the, professional, uh, what he said, uh, and uh, I think the little that he has said, he has not said much, but little he has said has shown us that uh, the pharmacy is also very important the doctors are important, the nurses are important, but the pharmacy is also very important. Um, and their job is not only to dispense the medication, that is their main job, is so that you know uh, when the doctor writes a medication, uh, they go there and they can recognize their medication and then they give the patient the medication. But that is not uh, the only job. Uh, the, the, this uh, colleague of ours who has spoken has spoken very briefly, but he has mentioned most of their jobs. So I will just dilate on, on, on, on some of uh, those jobs. Uh, he has mentioned the fact that sometimes a doctor writes a prescription because they are very busy. They are humans. Doctors are humans. And they can make a mistake on the prescription and the pharmacist is trained to be able to recognize that. So, that if it is a drug that is supposed to be taken three times a day and the doctor has written two times a day, when he looks at it, he will recognize that no, there's a there's an anomaly in this uh, in this prescription. Now, sometimes the doctor has done it deliberately because of some knowledge that he has uh, gathered. Um, so, the pharmacy will now call the doctor or contact the doctor and say, no, I have seen you put it like this uh, is it a mistake? Then the doctor will, oh my God, okay, it's a mistake. Sorry, can you change it? And then they can change it. So that is also another function of the of the of the of the pharmacy. Another function is that the doctor has written many medications. One, two, three. Some of the medications react with each other. So if the doctor has not recognized that these medications react with the other, the pharmacist is trained to say that this medication is reacting and call the doctor and say look you've written this medication and this medication and they react in such and such a way then the doctor will give maybe an alternative uh, these are two functions but we will go to more functions mbokk yi lu ñoo wax rek uh, mooy ne comme nuñ ko gisee ci um, waxtaan bi nga xam ne suñ suñ suñ suñ mbokk mi nii waxtaan na ko ci pharmacie bi uh, lu mu doon wax rek lu bëri la wax ci ci ci ci kàddu yu tuuti tuuti waaye wan nañu pharmacie tam lu ama am important la nekkul ne ku nekk docteur la nekkul ne ku nekk nurse la nekkul ne ku nekk pharmaciste la waaye ndekete ku nekk am na am na liggéeyam pharmacie bi nag nu ko nit yi xamee mooy place bu ñoo jëlee garab nit yu bëri dañoo foog ne rek docteur bi moo laa bindal garab rek nga dem ci pharmacie bi ñu jox la garab boobu noonu loolu noonu bokk na mooy liggéey bu gën a rëy ci liggéey bi nga xam ne pharmacie daf ko dee def waaye nekkut mooy benn liggéey boobu noonu rek am na yeneen liggéey yu bëri yoo xam ne pharmacie yi dañ ko dee def bokk na si ne eh, yenn yi eh, docteur bi mun naa binda këyit pour nga jëli garab eh, docteur ki nit ki nit la daf dee def mistake yenn yi amul benn docteur boo xam ne dina wax ne man euh, du maa def mistake tuuti dina def mistake looloo tax tam team bii nii important because docteur bi su defee mistake nurse mun na koo gis ne ah kii def na mistake mu ko docteur ah fii mistake fi wala nurse bi def mistake docteur bi ne ko def nga mistake wala yooyu noonu ñu mun a ñu mun a toppatoowante seen boppa so léegi nii docteur bi su ne garab bii nii nga na ko jël ñaari yoon pharmaciste bi mun na koo gis ne ah non garab bi normal yi ñetti yoon lañ ko dee jël tax am na lu tax ñu ko jël ñetti yoon moo tax si bi jëlbeen bi ma ne leen xam-xam bi nekkut xam-xam boo xam ne da nga koo foog rek wala dañ la ko wan rek wala secret la déedéet amul benn secret noos bi mun naa xam ne docteur bi lii mu bind nii nekkut ne nii lañ ko dee joxee normally because xam na loolu noonu xam nga su nekkoon ne sëriñ la mu ne la demal jëfi nangam keneen du mun a ñëw ne la déedéet duñ ko dee defee nii de non non non parce que amuñ loo xam ne moom noonu la ko xamee am na loo xam ne secret boo xam ne am na ko yow amuloo ko ñun amuñ secret yëpp noonu noonu la war a demee léegi ni su nekkee dem na nag si pharmacie bi pharmacie bi mun na koo gis ne non garab bi ñetti yoon lañ ko dee joxee mu call docteur bi ne ko docteur ñetti la yoon lañ ko dee joxee de normali lu tax nga bind ko ñaari yoon docteur bi nag mun naa am leneen loo xam ne xam na ko ci mu ne ko non bii nii nii laa ko joxee ndik lii moo tax am na yenn garab yoo xam ne ñetti yoon lañ koo jox xale waaye ñaari yoon lañ koo jox màgget so léegi nii mu ne léegi nii màgget bi am na beneen feebar boo xam ne pharmacie bi xamu ko woon mooy ne xëj na am na feebari xol du mun a jël garab bi ñetti yoon moo tax ma bindal ko ko ñaari yoon waaye ñoom ñu mun see waxtaan mun naa am ne nag docteur bi dafa defoon mistake mu ne ko waa wax nga digga man dama defoon mistake nañ ko ko jox ñetti yoon loolu noonu bokk na ci lu pharmacie bi di def ñaareel bi nga xam ne pharmacie bi daf ko dee def mooy ne euh, léegi nii docteur bi jox na la ay garab yu bëri yéenay dafa am garab yoo xam ne soo koo jël warloo jël beneen garab loolu pharmacie bi sax xëj na moo ci gën a am xam-xam docteur bi so moom mun naa seetlu loolu noonu ne docteur bi ah bii yaa ngi ko binda malade bi mu ngay jël beneen garab bii nii fogu ma ne war nañ koy jël tugee da nga gis docteur bi mun na nag binda beneen boo xam ne war na ko mun a jël loolu tam bokk na ci liggéey pharmacien bi ngol am aliye interview woni jibe uh, ñi nin ka roñi jeñamin uh, mi min tata ye pharmacie dow kula fo ñinin ka min mala dow koti aya fatam fansa a moli a tela dow ko muminti mool ɗum nan lanno momenti wala ko ni tata doron docteur o ya ay skaito safe min ɓe dow ko la pharmacie a tela ko mo pour ka boroñin sika rong ka la docteur o ya safe nyamen hani tolla la do ko be be el commin ɓe londo fala coming i tata um, uh, docteur o ya ay boro safe um, ya kayto sika i tata fo pharmacie tiyo ya ate dobi ja sa no le a je ko a ñin bori kar docteur o min safe um, a ñanta ka taale fo si ñasaba tilo kono a ñanta ka taa fo tili nangam a bari docteur o e ko docteur o ya safe je tilifula ate se docteur o no la ya fay a nga nga nga kayto min je ya safe ye tilifula le keje adum boro a normalement mol nyanta katale fo tili saba a seke docteur o safe e a hani um, uh, nyin ka nyin ka ay nyin ay ay ay ku kar la ya tinna nga safe ten pour ayata a seke a pharmacy min be do kala pharmacy amalon ko nyin marie kuran koten ne soto mi ya lonko a docteur o ya safe so anin docteur o se o kachano docteur o ya fay ko ñing ku karila ya tinna nga safeteng pour ate ayata a nyinsilo la pour asa makoy wo fana mu la do quality comme ning doctorol ka nyomay wala tinna cha ko man to ron nga foko nyin do ko mo kili do ko nteng um, do ko lo mi ya lon ko tim lom comme mo jama do ko lom nka nyo sembentu ya pour pour pour do ko nyin sita nyama wala tinna comme ni tata a moro ya doctor ya doctor ya fa nyamin do tata moro ya na ko ko a ibe ibe ni sole bondi la sadati moti je min se eh, kafa kan ka ko hani doctor ay ay ay mor kari ari manya na kaniso bondi be sajo la bondi laje hani ntolla do ko mumiya yal e kuleti miya lon ko nka karane mo kilim buka lon nka e, mo mo jamalo mi tata ya karange ila ila londo futata dame momo ni la do ko lon momo ni la londo lam wo mu ku kilinati miya lon ko abulati la do ko kono comme nin docteur o kusa fe dorong itol se docteur o kumandi am pour ya faye ko um, nyinni nyinni nyinom fulanjango fanang ami ila ila ila do ko kono wala coming dr roy boru safe uh, um, a um, ate pharmacy do ko aya a do aya je ko nyim bori e fulol e buka nyota nin a uh, o roy nyin safe dorong ite kuranto yata dorong abe uh, ni fula, e, uh, ni fulol nyin ta dorong e be balo man toralan wole al wofana mala do ko le ti pour ka dr komandi ka fay ko a, a doctor ila nyim bori Eh, ay fulol min ye safe o bori jamal min safe i bukata a a ba jato o do uh, pharmacie do kulal pour uh, l'hôpital ay eh, jata kende karola um, doctor Thank you very much. I think there's another thing that I will talk about. Time is also uh, going again, uh, but there is something that I want to talk about before we leave this uh, pharmacy topic. Um, is the fact that there are some things that are called off the counter medications. Medications can be very dangerous, but there are some medications that are known to be safe to be given temporarily to people or given as a trial to people to see whether it takes uh, care of things. For instance, headache is really very common thing and people get headaches for a very uh, various number of things. Sometimes it is for a dangerous thing, sometimes it is for a very minor problem. I mean, we have all these problems, even driving in the traffic in the Gambia now, driving, uh, you know, those of us who are in this area, um, driving in some areas can, can even give you headache. Only that alone can give you headache. And people get headache for various, various reasons. So if you get every headache that you get, you go to a doctor, you're going to waste a lot of time. And there are some medications that can be given, some minor things that can be done at the pharmacy level. So if you have a headache for the first time and it's disturbing you and you want some paracetamol, paracetamol is an off the um, uh, uh, over the counter medication. It's called an over the counter medication. You can you don't need a doctor to prescribe it. You can go and say, look, let me try paracetamol. But what that means is what people should understand is that if you go and take that paracetamol for one day, two days, it is not working then that gives you the idea that no, this is not something that I should continue this way. I will go and get another help somewhere. So there are some minor things that you can get help for in the pharmacy. You have a small um, lesion on your on your on your hand, a small boil on your hand or something. You can go to the pharmacy and say, oh, "I have this boil. What cream is the best cream?" They will give you the cream that is the best cream. If you try it, it doesn't get better. Then is the time uh, to go to a doctor. So all I'm saying is that there are some minor things that can be done in a pharmacy, but people should remember that it is not meant to be a place to go to for consultation. It is not a place that is meant to go for so that they tell you, okay, go and do a malaria test, you come back, I will treat you, go and do this. No, no, no, it is not a place for that. I know that there are some pharmacies that are doing that, but it is a wrong practice. Um, uh, some minor, minor things that can require off the counter medication should be given that way. Malarial tablets are not off-the-counter medication. Antibiotics are not off-the-counter medication. That is why we are having a lot of problem. I think we'll come to another program and discuss uh, all those things. But I think it is good to tell uh, people about these things. Luñ doon wax rek léegi nii programme bi tey uh, pharmacy bi sudut johe garabi garab yi ak seetantalu garab yi nga xam ñu ko binda am na ay yu ndaw ndaw yoo xam ne ñoom mun nañ koo toppatu foofu jarut ngay dem si docteur euh, lu ma doon wax rek mooy ne bopp bu métti bi bëri na lu mel ni bopp bu métti damaa joxe exemple nii rek nekku ne bopp bu métti rek la ñoo wax lu mel ni bopp bu métti wala gaañu gaañu yu ndaw wala yooyu noonu Euh, nit mun naa dem ci pharmacie toppatoo parce que léegi nii àdduna si dafa nekk loo xam ne coono yi dañ bëree bëri ba nga xam ne lu mel ni boppa bu métti ñun ñëpp dañoo am boppa bu métti ngi doon wax mbiri dawal bi rek fii nii léegi la tali yi mel soo génnee tali yi léegi nii bugg a dem place ba place balaa ngaa egga noonu sa boppa bi na métti parce que nit yi di defee naka la nit yi dawalee moto yooyu noonu so boppa bu métti bu nekk soo doon dem uti docteur comme nuñ ko waxee woon fii nii dem seeti docteur nekkul loo xam ne lu yomba wala dem ci lopitaan pour ñu faj la nekkul lu yomba di nga jaar fii jaar fay jaar fii so yooyu noonu mun ngaa dem ci pharmacie ne leen ah man de suma bopp maa ngi métti fan yi ma seet la na xew uh, am na nag ay yoo xam ne suy joxe boppam métti lu dangereux la dee nekk soo moo tax soo demee faju ji façon fajo yooyu noonu yu gaaw yooyu noonu nga dem rek nga ne waaw man dama soxla paracetamol parce que xam naa ne paracetamol daf day faj loolu paracetamol garab bu bu bu bu baax a baax la te garab la boo xam ne dangereuxut so soo ko jëlee benn fan ñaari fan dimbalewut la kon naa jot na nga xalaat ne am na yeneen yoo xam ne yu serious la yu day joxe euh, euh, euh, boppam métti lu mel ni high blood pressure dam joxe boppam métti lu mel ni nacca ci sa biir brain bi dafaa joxe am na yeneen yu bëri yoo xam ne dafaa joxe boppam métti loolu jot na nag nga ne ok léegi pharmacie bi doy na xaaral ma dem uti koo xam ne dina ma seet bu baax a baax a baax ma mun a seet la na jot foog naa ne eh, am na yeneen yoo xam ne tam comme nga yaa ngi am taab bu ndaw wala yooyu noonu nga dem ci pharmacie bi ne alan ah, moo baax ci taab ñu jox la taab nga seet loolu tam su fajuwut nga door a dem nag seeti docteur yooyu tam benn la ci liggéey boo xam ne pharmacie dañ ko dee def waaye lu ma bëgg a wax nit rek mooy ne buñ jàppane pharmacie mun nga faa dem eh, nit seet la foofu noonu laaj la ay question ne nangama mel ni docteur bu laa seet ne la demal nga defi test nangam wala si pharmacie bi sax si boppam ñu defal la ay test yoo xam ne ñu ne test bi ni nangam ñu commencé di faj soo ko defee noonu loolu noonu nekkut lu correct pharmacie bi warut a def loolu noonu loolu du liggéeyam waaw yu ndaw a ndaw yooyu noonu nag moom yoo xam ne lu ñoo ooyee off the counter medication mooy loo xam ne ñun ñëpp oor nañu ne garab yu yu yu yoo yoo xam ne dangerous noonu yu ndaw a ndaw yi nga dem nga jëlee ko foofu noonu mel ni looy jënd ci bitik loolu noonu du problème waaye nag bu mu ëppa fan lañ war a dugal mbadin al'ama ah, me kacha um, ah, watu bi e eh, min tuta mansiya bari um, ah, me kacha ambe dunna kacha no coming a uh, kamol london diko nga min fo ko banto coming eh, itata boro nyine um, a pharmacy so uh, doctor e eh, kar e kusafe um, uh, mimbe do ko la ja kay man uh, nyins ay min safe teng amanya nakata teng o ye doctor e boro safe me ya lonko um, imanya nakata nyola um, pharmacist la do ko mo fanante le pour ka doctor london di wala e la do ko mandan wala to ko coming um, ye kun ndimo soto itata pharmacist to itata pharmacie to mimbe do ko la jata ka fay ko pharmacist to a se ma ko inole coming kundimo mu kuleti mi alon ko dobi je bata fango doron doron ka ka ka kos nole ni tata ikay ko ko ke dimila ate pharmacy to ala do ko mu do ko kono te uh, pour ka ka juve a sake ay paracetamol dila comme in paracetamol do ay boro lo mea lon ka ay sembo soto adunga te a hadama dingo jato man tora la no tariake pharmacist la do ko mu fonantere pour ay juve no ay wo boro dila ban ni aje ko boro min pharmacist ya dila a tata fotil killing tilifula a me makoy wo isa lon koy hakilo nyata ka dila lo ko say ngwato sitale pour ngata lopitano to pour yemma koy al al anim fanan ko coming a nyin baramandi ndiŋol ñi yitol teng ni nga wol soton tata je ye maako borol ton salon ko fanam fanaŋ mi alon ko a la koti bari ni nga tara doroŋ ŋaaje ko ye boro min dinna amma a bake maako kata ŋa taa to pour nin tata fistero kisi kisikisiro se siaje puru pour fango muna muna a wala mbe moolu de la wala ko wo fanam bulate la dookuwol kono le bari do ko min fo itaje ita je ko kundimo ako ani jam to borin do fango dorong o ma fansu e, eh, e eh, eh, batale ti mi ka se kundimo kosnole na kom ka jan na, na, na silol motol siata moto borin do a, a, a kwale yata le sain bar ni aje ko itata a pharmacist ya ay boro di la pour kundimo nyin yaje ka man fisaya akoye boriyeta lopitano to bayri kundimo dobi jabu kake kundimi kensanti asake kundimo ti mi yalon ko ila yelole seleta inyanta ka buri yeta lopitano to because wol dorone se ma ko ino pour kaje ko yele selolam ako pharmacie dobi je ni tata isa tesol keyenole am ye nyimborol dila wo manke la do ti pour mol sa faham ko ila do ko mo nyimminil fale bari ka kadung ka ka doctor wala do ko ke wol be manke la do koti ni tata yela yelo kiskesi ye iko ye yelo le kiskesi ye ye ye borol dila ya fo ko nyin nyin kurang le bela nga sambateng hani mol sa faham ko momo la do ko dorong a lodula le bije adum pharmacie la do ko a nyi lodula le bije kurang dol bije nyanta ka bori lopita notale um, lafta ka wala fo mol dorong ko wo mo fana mo la do ko ti ka min Thank you very much, Mariama. It seems the time is almost over now, or actually over. But what we'll do is just promise the people that it's not only the doctors, nurses, pharmacists that work in the hospital, there are other departments. And next week, we will come back and talk to you about another department. Uh, we can have laboratories, you can have x ray departments, you can have what we call physiotherapy department. These are another set of uh, people who deal with uh, sick people. There are so many, but uh, I will let Mariama um, say bye bye to our viewers, and then I will also do the same. And when we come back, we are going to go into the laboratories, which I think is also a very important uh, topic. mbokk yi ñu ngi leen a tàggu waati fii nii man balaa maa tàggutoo rek dinaa Mariama uh, Tagulen. leen Euh, njëkka euh, den suñ ñëwee ci suñ next programme bi dinañ waxtaanee beneen département boo xam ne am na ci loppitaan yi muy lu ñoo ooyee laboratory bi mooy fu ñoo defee test yooyu noonu am na fu ñoo defee nataal yi am na ñu ñoo ooyee physiothérapie am na yu bëree bëri yoo xam ne mu ci suñ beneen programme bi dinañ dugg ci yooyu noonu tuuti waaye ma bàyyi Mariama tàggu leen den man ma tàggu leen ba beneen euh, week ñu ñëwaati fii mbaɗi walla wato yen so jannotowa pour pulunga kaca kunduje mba folali ko doron comme ga manque ni tata l'hôpital noto docteur o noso anin pharmaciste o tol dorone kumma yata l'hôpital noto do kulal siata je ibaje la ko minil ka do ko ke labol be kumma yata le minil ka do ko ke x-ray to wolom na tar lalti anin minil ka do ko physiotherapy ni ko physiotherapy nyaburla wol be kumma yata je len be kaca danna jang lokun koteng be wol kacha nati la pour mol sa faham wala do ko do ko momenti me kacha na janga falia la baraka fo lukun koten thank you very much dear listeners and stay healthy and see you next week mbokk yi ñu ngi leen a tàgguwaate fii nii ci seen programme health link be next week ñu waxtaanaate yéen continuer waxtaan bii nii jërë jëf